ngeen xam na sëñ Tuubaa moom ku ko mën a nax amul ci àdduna bi kiy def lu baax moom borom daaru nee na yàlla du fob jëfi kenn faye ko morom waaye jëf boppam ne alxuraan la ne léeg nag bu lay fay da koy ëppal moo tax kuy jëf lu baax it soññ ko ndax léeg day jëf ba jëf lu ko ëpp bu ko yàllay fay boole ca bokk yi boole ci dëkk bi boole ci tund bi boole ci réew mi boole ci àdduna bi léeg-léeg def ab safaan bu yàllay fay da ciy boole léeg-léeg dëkk bi danay ëpp dëkk bi réew mi mbooloo mi ba tax na koy def lu baax sa wàll nga ci waaye daal sëñ Tuubaa daal ku koy liggéeyal liggéeyal ko rek te sëñ Tuubaa tax ndax moom sëñ Murtala laa njëkk dégg ci làmmiñ moom sëñ Tuubaa ma ne man day suñu waajoo ji ginnaaw bi nag maa ngi dégg ku ne di ko nett waaye man ci làmmiñ sëñ Tuubaa laa ko dégg sëñ Murtala laa ko dégg mu ne suñu waaj ji de moom lu waaye muus muus muus muus mënoo koo nax waaye lu waaye dox dof du la nax du nax kenn waaye kenn mënu koo nax mhm. kon nag la ngeen nekk foofu ne te sëñ Touba tax mhm. noo ngi ñaan sëñ tubaa fekk leen fa dimbali leen boppam mhm. te loxo sëñ bi gën loxo yépp ci nit te bu nekk ni sëñ baa ngi fi te man am naa ci lu ma leer ne sëñ baa ngi fi ndax dëkk bi ma nekk Euh, jaamu sëñ Tuubaa laa doon ak Ceerno loolu laa fi bëgg a doon it nag waaye koo ci dem ci moom ne ko yaa ak sëñ Kara am na lu ngeen nuroo la rek ñu bëgg waaw kon mel na ne euh, ñi ma fi tamit bëriwul ndax nit moom bu fekkee koo ne yàlla na nga mel ne sëñ Kara mu ne amin <laughs> kon am na lu sëñ bi def ci man li mu def ci man nag yaakaar naa li ma ko may muy bëgg ko rek man koy bañ ko yemale kenn jamono ji nag defe def lu baax moom jafe na jafe na waaye da def rek te yàlla tax lu la ca fekk baax man daaw fit moom maa ko ëppale ku yàlla bind ci lu baax xam nga lu ma ragal asamaan rek yal na la yàlla jàppale ko na la yàlla dimbali bi yal na yàlla eggale fa nga jëm ci borom daaru daana wax ne nit nu mu bëgg a mel bu ni mel mel noo yàlla melal ko ni waanal fadala bi yadillahi yutihi man yasha baax baax lu mu baaxal nga bon bon lu mu bàyyi nga bon nga jàmbaar jàmbaar lu mu jox la nga yaafus yaafus moo tax nit lu mu bëgg a mel na lay mel te doomi waaju baax mm-hmm. ak a yomb baaxal borom daaru nee na boo mu masaax diw daa baax ku ko jur mu ne xaw ma ko mu ne ku ko yar yaar yooyu rek la daa laaj mm-hmm. ku ko ko yar ñu ne ko loo jub lu mu ne philosophe yi eh, eh, doomu aadama yi wolof yi ñoo tudd doomu aadama ab wàññi. ab lan wàññi. ab mhm. defe naa fukk. Mhm. nit. nit téeméer. Mhm. fanweer. yooyu fi mu toll nii ban dañ koy bëgg a fàtte nit. mooy ñaata nit. waaw ma ko. nee na ab wàññi la nit. nit te nga nee ñu waaye wàññi ci wàññi bi lañ koo doxee. mu ne soo amee sa gone di wax lu baax muy dégg nga di ko ko wax loo di jëf lu baax muy gis nga di ko ko jëf loo ba mu am ñetti at ci lii borom du nee na jëratul contrôle. ne booy dox gisu la nga di ko gis muy dox ba mu yàgg mu dugg fu baax fu baaxul nga xam ne fi muy dugg dara baaxul. borom daaru ne bu ko bu fa génne bàyyi ko mu dugg fa ñu ne ko ñu ne ko tax mu ne dara dara du ko fa soppi. <laughs> waaye boo yaroo sa sago topp sa bakkan mel nu la neex ba am ñetti at yi ne jëratul sonn li des ci dundam bu dëkkoon fa ñu gën a baax du ko tax a baax. moo tax nit day toll foo xam ne mën naa fanaanoo sax xëy su ma xëyee ay ni ma ñàkk fu waaye su ma xëyee mm-hmm. waaye bu xëyee mm-hmm. du lam bëgg a def te baaxul du ko mën a def mm-hmm. da nga gis koo xam ne danaa bu subaa dinaa baax waaye bu waaye bu xëyee du ko mën te lu baax boo ko tàmbalee tàmbali bi rek metti waaye lu mu gën a dem ci kanam gën a yomb ndax dañuy dem bu mu yàgg dootoo moom sa bopp ñoo lay moom lu baax ak lu bon ndax boo demee bañ fob ak nos def fii ci sa bakkan moom wutoo sa bopp moom mhm. fuñ ñoom ñooy dem fuñ jëm jëme la mhm. bu dee lu baax mhm. léegi ñooy xëy rek di dox fu jëm jëme la fa bu dee safaan dem na ba fob am noos def ci sa bakkan aha moom itam moomatoo sa bopp bu xëyee fu mu jëm jëme dox ñu ñaan ci barke Sëñ Tuubaa daal yàlla dafa leen jàmm li ma lay bëgg wax ni lu leer na nga ko bàyyi xel te nga xool ko dafa masam bis mu dajale moom Sëñ Tuubaa seex yi ak bokk yi ak taalibe taalibe yi beru fii defar gi ak bokk yi beru mhm. mu génn te loxoom ba ca boppam ba nga xam ne bu nata yàgg fi barab na lay toogee wonk wonk me mhm. hmm. yéen saa bokk yi mhm. ak saa defar gii fonkal leen ma ñii ndax nit kat bu la defalee loo mënul amoo ku la ko mënal da nga ko war a fonk te xam nga fu may xamee ne fonk ngeen ma mooy fu ngeen bu ngeen fonkee ñii rek hmm? ay waa ji fonkal ma yii fonkal leen ma ñii na ñokket fatu génnaat daal di dajalewaat nit ñi ne leen yéen taalibe yi nag yéen taalibe yi na ngeen ma wattu ci saa bokk yi saa defar gi duggaat fatu <laughs> est-ce que yéen taalibe nag wattu leen ma ci saa bokk yi ak saa defar gi fatuwaat <laughs> ba mu génnee mel na magum taalibe ne ko ah, Mbàkke nun day danoo jaaxle ndax dafa mel na sa bokk yi ak sa defar gi da nga leen a ñaan ndimbal ci nun hmm. nun nag danga noo tëkku mu ne du tëkku de waaye la wax de laa ci jublu mooy ñoom ñoo ñi de ñoom ku leen defal lu baax ñu xam ko wala xamuñu ko mën a fay wala mënuñoo fay bëgg fay wala bëgguñoo fay gis wala gisuñu su leen di fayal du ma leen tàggu <laughs> am sëñ Tuubaa nee na ku def ci ñoom ku def ci ñoom te muy defar gi ak bokk yi ñu abdul woon loolu tukki de mhm. ñu xam ñoom wala ñu bañ a xam mën a fay wala mënuñoo fay bëgg fay wala bëgguñu man sëñ Bàmba suma ma leen di fayal du ma leen tàggu daal nag waaye ku def ñoom ab safaan ñu xam wala xamuñu man a fay wala amuñu doolay fayu su ma leen di fayul du ma leen tàggu mm-hmm. dañoo kat wacc leen moo mm-hmm. wax ne man day ci darajay rasulullahi li ma doon liggéeyal yàlla bi ma ko fayee mm-hmm. la sama xol sedd mu ñu ne ko loo doon yàlla mu ne ku yàlla bind sa ajana nekk ci sama loxo te yàlla fayee na ma àjjana àddina àjjanay ku yàlla bind ci sama loxo bi mm. mu ne waaye la ca yàlla teg ci coobareem bi may fay nga xam ne ci coobareem ak xolom bu sedd la ma ko gërëme nee na yaakaar joo xam ne ci man lañ ko wékk du ko tas moom bu doon sëñ maam ma mm-hmm. ah? mu ne waxuma la jëmm jëmm joo xam ne maa ne wala sama deret wala ku may gërëm waxuma ko dama ko teg fee waaye garab gu ma mas a jaar dem garab ga daanu ba def ëkkub jana nga ñëw fa toog fa di ma fa nekk te def fa minit te fekkuma la fa defal la fa la nga bëgg nee na loolu du am ceeb waaye bu fekkoon du woon lii yii kon murid yi am am jafe na nee na moom fuñ taalibi yi daw yaakaar rek ma daw jiitu leen fa moo tax ma ne li fi nekk sëñ bee ko fi def te yéen a tax mu def ko fi moo tax ku ne war a defar sa bopp bañ yaakaar ndax yaakaar yi taalib yi nuñ toll sag wilaaya na la toll mm-hmm. buñ nee ba yaakaaratuñ la dara new mbubb mm-hmm. mi ngay sol mbubb mi ngay sol bu ko kenn yabe fa bokk li ngay wax nit ñi dégg bu ko kenn yabe fa bokk la ngay jëf nit ñi gis bu ko kenn yabe fa nga bokk bëgg taalib yi yërëm leen te yàlla tax waaye nag bëgg taalib yi waaye bëgg adduna daal boo ko defee bàyyi taalibe yi sëñ bi moom la mu yoroon di ko fayee taalibe yi nekkatu denc na ko feneen waaw waa taalibe yàlla fu ñu wuti sëñ bi jiitu leen noo ngi noo ngi fedd kóllëre gi nga xam ne am na ci ndigalul sëriñ Amsa mu sëriñ Abdou Lahad ndax uh, liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Xudaamul Xadim bi ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbakke ci lañ ko yees yeeslaat ngir ñu taxawu uh, dëkk bi ak taalibe yi ci lépp lu jëm ci wàllu kaaraange waaye li ci jiitu nag mooy ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñuy police ak gendarmerie ñun ñoo nekk seen ñi leen di gindi ngir ñu jox àq ak warma ñi nga xam ne ñooy waa Kër Sëñ Tuubaa yi ak seex yeeg sët yàlla dogal na loolu bis bii nag sëriñ bi woonu ànd kook ñun sëriñ bi tam jox nu ci ndigal ndax ñun Sëñ Tuubaa rek lañ fa nekkal élément lañ yoo xam ni ëpp nañ ñett téeméer ak lu topp fas yéene nag def benn politique boo xam ne fépp fu daray Sëñ Tuubaa nekk rek la ñuy sécuriser donte maa dañuy jël ay policiers di leen fën ndax duñ xam nit ñi ñun ñi xam nit ñi ak kilifa yi ñu leen fay jiitu di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom liggéey bi. moo tax sëriñ bi nee na mi ngi lay eh, dolli kóllëre di sàkku ci yow ñaan moo tax mu jël liggéey boobu nag teg ko ci loxo sëñ Basirou Coro sëñ Basirou Coro teg ko ci loxob sëñ Abdourahim Fall moom sëñ Modaminta mu dénk ma lépp nag. ñu ngi ñu ngi yeesal kóllëre googu di yeesal wóllëre googu ci yow di la wax ne lépp loo xam ne yittey kër gi la ci lu jëm ci réew mi ak ci ci Sénégal yàlla dogal na ñi wàllu autorité yeeg yooyu amante na maag relation yi ñeme noo xam ni lépp lu jóge ci sa euh, ci sa kàddu ñun lañ ca mën a taxaw danañ ca taxaw ci réew mi ak ci bitim réew mi loolu tam digalul sëriñ bi la mu ne nuyu naa la ko jotal bu baax a baax waaw waaw na ma ko waaw na ma ko léegi nag dañoo dem ba ak ku ne day yanu ba day mujj ah. yow day jafe ah. waaye moom baax ko xamee xam nga sëñ Tuubaa ma jur sëñ Tuubaa jur saa baay neex na lool la bu mag a mag a mag mm-hmm. te lépp waaye lu ne barab bu ne la fa ne mm. ku def lu ko yokk mm. du wàññi ko waaye du yokk de mm. <laughs> sëñ bi moom am na lu mu wuteeg yàlla ndax yàlla moom fi mu la rëddal jaar loolu fi boo fi jaarul rek mu nangu lim la joxoon sëñ Tuubaa nag moom daa am wópp beneen la moom du nangu de lim la dénk du ko nangu waaye boo jëfut lu ko dolli du ko dolli mm-hmm. waaw te sëñ am sa moom aw doxinam rafetlu nañ ko bu baax. léegi daan laay jokkoo moom mu ne man nee ko daal ngi lay mi ngi feddali kóllëreem ci yow. lool dëgg la wax ni lépp luy sa taxawaay ak lépp luy sa yéene. na na na ko ànd ak yow. te jox nañ ci ndigal kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàggal la fi. dëgëral taxawaay boo demee daal nga ne ko. lu li ngeen doon daal ci moom moom laa doon ci moom rek. ndax moom mënumaa fexe ba weesu lu dul doon ab taalibeem. ci des yëpp nag. ay neex-neex la waaye amul njariñ ma bokk baay sama xarit la sama wala amul njariñ ay neex-neex la yoo xam ne sëñ bi sax toxalu ko fi da ko fee bàyyi sëñ Tuubaa sax dafa dafa santaane ñu doxal ko noonu mhm. ak ñoom mhm. sëñ Saaliwu laa ñëw ci moom di ko tàggu liggéey boo xam ne sëñ tubaa da ko daa liggéey mhm. eh, sama baay sama maam da ko daa liggéey ci sëñ Tuubaa xam nga ceerno sama maam seex na nekk ci Serigne Touba lu yàgg. Mhm. mu soog ko booleeg Thierno. bi mu ko booleeg Thierno naa dinaa fi def lu fi kenn defut waaye laa tàmbali woon foofee du ma ko ba def ndax kenn du tàmbali ci Serigne Touba di ba. addiyee ya da ko wéer. ndogu yam daa togg da koo wéer. lan daa def ci sëñ bi da ko wéyal ba sëñ bi làq mu mu continué ci sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha delloo siwaat ko fii ci Thierno. ma ne ko nag ndogu yam daa def moom. li ko yóbbu tubaa laa bëggoon tàmbali ko. lam daan def daaru lépp nag maa koy def waaye loola daal laa bëggoon tàmbali ko ci ab liggéey mu ne ma o oh, du jafe de mag ñooñu de moom mag seen tàmbali yi moo gën a yomb tàmbali ndax niñ gën a barkeele nit ñi ni la seen tàmbali yi gën a barkeele tàmbali bu beneen bu mu a doon ba ba tax na ko xam adduna del eggale rek xam nga luñ bokk ma ne ko déedéet li tax ma ne ko sunu yar nag moom mooy ak taalibel ci la ci lañ ñu jëme waaye hmm. nun bokk ak yéen moom yarulu ci hmm. waaye nu itam day sëñ Tuubaa def noo yar ci xamuk bokk ak topp toog eh. daal ne ma daa am bis ma ànd ak sëñ Abdu ak sëñ son yi bu ñu jëm ñaareel ñëw ba xuru Mbàkke nu jàdd fa di siyaare suñ nijaay sëñ Bay Jaxate hmm. ban fa jógee ñu egsi ci ku baax mu nuy laaj sunu yoon nag nu jóom ne ko aw nan kër sëñ Bay Jaxate waaye sëñ Bay Jaxate jan wax day sàllaaw moo yàq suñ ngan mm-hmm. sëñ Tuubaa tàng na ca jër li tax ngeen koy sàllalu tamit seen di mm-hmm. hmm? ngeen sàllalu ko tamit seen di jaay na mujj tey di leen wax bàyyi di wax nday di wax nijaay di wax bàjjen te xam ne kenn ku nekk ka nga waral bokkal ak bokk la yàlla booleel ak bokk daan daan na daan na daan leen man mii day man man Ahmadul Xaadim mii day li ma munta baal nit mooy aw ma mbokk moo tax dama ne yoon wi léeg-léeg mu doy waar. waaw ah ci lañ dëkk di ko wax. ah te te te bokk yëfi yàlla loolu dafa yomb a hmm. lu yàlla def ba noppi <laughs> sëñ bi du ñëw dindi la yàlla def. da koy dëgëral. Hmm. kenn nekkatul ay taalibe kum neex nga wax ko waaye ngay doxal yow ne man ab taalibe laa rek hmm. ndax kenn nekkatul taalibe boo ko dee seet yow mi nekkatoo taalibe sa gaay yi sëñ bi ku nekkati taalibe amatul ci yoon wi am doole di ko denc kër baay diw am alal di ko denc kër baay diw sa doole jeex sa alal jeex nga toog fa di sàmmub dencem loo jur ca kër ga doomi kër ga la mhm. nekkatul taalibe kër ga mhm. ñëpp doomi kër ga ñëpp kër sàngam hmm? loolu la yàlla def dafa am ku baax koo xam ne ñu di ko wax sañ Baara Njaay mhm. maami Xaadim Njaay mële kee maamam doyoon na waar lool mos naa am ku sàcc ay bëyam ab dëkk mu jël benn bëy rek takkal ko téere mu dem ba ca dëkk ba ne leen yéen waa Ngay sëñ Baale sëñ Ngal gu Njaay nee bu ngeen lekkee bëyam yi du rees ñu wëlbit ñëw ñu ne bëy weey wax ñu ne bëy weey wax benn bëy lañ ci reyoon aw faj aw wajan lañ ko fayee. baayam bi muy ànd ak sama baay di dem xumaag am na yoon woo xam ne nee na. <coughs> borom diwaan dañoo dem ba ci digg àll. Mm-hmm. mu def nii awra du dugal nu ci biir. léemu rëdd bi lenu fekk génnu leen ci rëdd bi nag mhm. ah, dara du leen fekk mënal leen dara mhm. mais bi mu duggee ci xul wi ne gaynde yi dañuy ñëw ba fii ci xul wi ñu tëdd euh, segg yi tene yi ak rab yi àll yu ñu xamul ne dañoo mujj dañoo tampaloo ba wet gu ne bàyyi nañ fa dara mhm. te dox bi bi ñuy dox bi ñu daata egsi foofu dañuy daw ba daanu ci gaynde moo tax nee na waman takkoon bi rasulullah nusrato inta xool us bi fi ajaame tel yi ni ñoom dañ koo dund mais buñ daanoo ci gaynde gaynde gi day jóg ne ñu saxaw mu dem ne ñu dem ne barab bii nag bi sëñ bi nekkee fii nag bi mu leen dugalee fii nag dugg fii ci xur bi yàgg na yàggaay koo xam ne léegi dañoo mujj tiit defe na sëñ bi ay rabi àll yi dañ koo lool mm-hmm. ba mu yàgg rek ñu seen ko bu ne tëll génn ne waax wut sin waaye xamatuñ ko ndax li dalee fii ci tànk yi ba fii benn yeew wala benn ñàngoor moo ko laxas mm-hmm. da nga téye ca bopp ba di mi ngi bitër bi sëñ léeg-léeg mu modd sëñ ba sëñ bi bëgg a daan mu waax wut si ñu jox ko paaka bi ñu yoroon sëñ bi rek ak ak lëf ki ñuy ñuy sëñ bi di reng ñuy bëre sëñ bi di reng ba bopp bi dagg bi mu sànnee bopp bi mi bopp ba di ngi ne baq làmmiñ wi làmmiñ wi melastiko mm-hmm. biñ teqanee jaan ñi ñetti mètre ëpp na ko mm-hmm. noonu nañ leen dem bañ doxee ñaari jéego mu ne li ma laxas ma woon xam ngeen ko ñu ne ko déedéet mu ne du jaan mu ne damaa ñëw ba ci xur bi ci darajay ki may fekk xur wi ci darajay ki may fekk mm-hmm. akuk baaxam yàlla xamal ma ne kuyul jinne lu wedd yàlla wedd yonent bi wedd Serigne Touba mi ngi fi dëkk di rëbb gaa yi seeti Serigne Touba xumaat mm-hmm. bi ma fi egg sa yàlla xamal ma ko ma ko doon rëbb danoon rëbb gaa yi rëbb naa ko jàpp naa ko rey naa ko moo tax sëñ Tuubaa damay wax ëpp na dañuy waxtaan nitam ñi doy na nitam ñi te fi ñu toll foo dem sëñ ma paate keroog ba mu egsee di nuyu sëriñ bi mhm. maam yi kii eh, satale gi ñu yoroon bi jàpp ci xoolal ba ñu nuyu sëñ Tuubaa dañuy jàpp ñoom dañoo jàpp ba set satale gi jeex ndax xam nga yoon wi laa yàgg mhm. maamam bëgg a nuyu sëñ Tuubaa jàppe boppam sobe daa mujj waaye ba ko nuyu ba mujj ci buubu sëñ ma paate la téye. Mhm. buubu borom diwaan ci la sujjoon nuyoo ko sëñ Touba. mu ne la ma téye woon ci buubu moomee nuyoo ko tubaa Touba xaadim rasul ci baaxu borom diwaan sama sëriñ ak saa pas-pasu bopp. Mhm. may na ma may dox ba egg ci tànk bu ma gis si yoon te xaw ma borom. Mhm. xam naa góor la wala jigéen la ñaata at lay dund kañ lay dee day dem sawara wala day dem àjjana mbubb ci la ci ma rek hmm? ci mu ne la ma téye woon ci mbubb ma nuyoo ko Serigne Touba ci baaxuk Serigne Touba ak saa pas-pasu bopp may na ma may dox ba egg ci ah? kenn mënumaa dencal ci àdduna lu ma bëgg a teg sama loxo te teguma ko ci am na ku wut ñetti dërëmi nguur di ko di ko contre denc ko ci ci barab at at ah mu laaj ko ko mu waaxu wuti fa ko suul waa ji topp ci ba fa ko suuloon mu sulli ko jox borom daaru am na jaaroo bu ko réer dañoo defee ne ci sëñ Tuubaa la bàyyi ko ndax dañ ko wër wër gisuñu ko mu ne mun a ñàkk a feeñ ñu ne ko wax ko borom diwaan am na dongo loo xam ne bu fi ñëwee mën na koo gis mu mhm. ànd ak sëñ Baara Ndiaye ma kaate xool nañu xoolal sama jaaru dafa réer mu daal ko baara nañ ko wëri bi mu dikkee baara day ñëw ba fi sëñ bi doon jàppe rek fi la ji sa jaaro bi jox sëñ ma paate mu ñëw jox ko mhm. borom daal bi muy bëgg a génn àdduna la woo doom ji bàyyi kee ana anaw bàyyam bàyyi kële mhm. ne ren lay génn àdduna yàgg na de booba téléphone amut dara amut euh, docteur amut mu ne ko damay génn àdduna ren man ak sëñ diw ak sëñ diw ak sëñ diw ren ren la génn àdduna waaye bi muy waaj nag dama doon xool mu jug jamono waaye yéen kat bokkuñu jamono nuroowul sax mbir ndax yéen seen mbir bala ngeen a amub taalibe waaj moom day xool ba ngeen amug mu xool ba ngeen am ngor am lislaam am diine gën leen a gore di di def ay xar ñuy gis ñu soog a jébbalu loolu yooyu ngeen am dañu am noonu nag da di fekk loolu xew yi bu boobaa bu boobaa dañuy wax ah, di woo jur nelaw na ana doomam hmm? bu boobaa da nga gis saay-saay bu ëpp mbooloo jaamukatu yàlla la mu ne ko bu boobaa boobaa lay maye mbooloo nekkul lii ne <laughs> bu boobaa lay maye mbooloo mooy yitte rek bokk fu boo xasee bokk fu foo xam ne ay sëriñ lañ boo amee yitte woyef am njëriñ rek am mbooloo mu ne bu boobaa ñaari tund benn tund ñaari seex ne fa kii am yitte woyof am jariñ kenn ki amul yitte woyoful amul jariñ ki am yitte woyof dana nangu mboolam ki ci des mm-hmm. waaye kenn du xàcc de nangu gi dee du xàcc bu booba kenn du xàcc mu ne bu boobaa ku am loo naqari fa nga jébbalu da xuloo toog xeex toog sëñ bi du ma maa bañ du ma ko def waaye du xàcc da ngay toog continuer sa njëbbal kenn du xàcc waaye bu boobaa sëb sëriñ dana woote joxe ndigal nga taaye lool ba doo ca bokk sa sëriñ woote nga am sa ñi koy am sa beneen bii nekk ci uh, xasaayit mm-hmm. xoolal li koy wuyu mm-hmm. da ngaa seeni sëriñ la du sëriñ ñëpp mm-hmm. ah? ne bu seen sa sëriñ woote nga bañ a sëriñ woote nga dem hmm? sa sëriñ di laajte nga bank sa loxo sa wala sëriñ di laajte nga joxe mu ne danañ wàññiku nag ku la neex lool nga am doom tudde ko mu màgg nga fab ko jox hmm? loolu mbir mi fi mu toll nii mbirum Serigne Touba Xaadimu Rasuul daal li ci am solo ak fu waay mën a nekk ak lu waay mën a defal mooy doonub taalibe taalibe nag boo ko doon jàngale moom moom daf alxuraan dafa yomb a jàngale doonut loo xam ne wat ay waxtu ab seconde rek <laughs> moom moom dafa jafe nag ndax saytaane mooy def lépp lu ki jublu seytaane mooy taxaw di la ci génne waaye Seex Ibra de ba ko sëñ Abdourahman ne dama bëgg nga jàngal mag caali bi mm. ndaam mm. mooy mooy mooy mooy sëñ bi loo ndaam sëñ daa Abdourahman loo ne ko fekk sëñ bi dañoo toog mu ne sëñ bi wutal ma wëllare Seex Ibra Faal ne ko wutal ma wëllare mu boole ko sëñ daam Abdourahman loo mm. ñu toog benn bi sëñ daam Abdourahman loo ne Seex ah man damaa bëggoon ku ma jàngal ak taali bi mun ko ah, ndax xam naa ko mun ne ko li nga ci xam faal mu ne ko li ma naa bisimilah ay xanaa mu ne di ko wut rek mu ne ko boo ko dee wut ba am ko ne mu di ko wut rek. Mm-hmm. mu ne ko boo amee te bañ di ko wut rek <laughs> saa yoo defee ne am nga ci dara mu ne yàqu na. Mm-hmm. di wut rek. mun kon jafewul waaye nag li li ko mën a yàqal de moom. Mm-hmm. mooy seytaane kese. waaw sëñ sëñ daa toog sëñ Maodo Roqe nekk tout tànk ñëw ci këram. Cheikh Ibra tàmbali jógal boppam ak jëfal boppam ci jëmm ji ak woote ak def tuuti waay bi nag jaaxal mel na mag bi mu demee mag mi daal di ñëw fi ah Fall kii kuy way juram Cheikh xam xam <laughs> waaw ndeysaan mhm. daana ba jël bi gii fi mu dajalewaat ñu fekk waxtaan ah hee ah waa kër Bamba kenn du laaj mhm. kenn du tudd kenn du xool boo amee teralal soo amul yéeneel sa noppi daal ne ko xee diw de sama kër gi kenn ëpp ci woon ak taalibe ak pas-pas ah sori woon nga de waaye loo ci amoon yàqu na tàmbali ndax li nga amoon day mooy ah nekk taalibe murid saadix xam nga lu mu doona ah? ah julli koor naftu asak dem màkk mboolem ponk lislaam ngërëmul yàlla la ñuy sot kus kus kus ba soog koo daaneel te mm-hmm. taalibe bi kese day ñëw daaneel ko moo tax mu ëpp njëriñ lépp waaye loo ci amoon ni ah tàmbaliwaat <laughs> soxna